Sénégal ñuy déglu gërëm aussi waa Notto Diobass nga xam ne euh, ñoom ñoom wóolu euh, def ma fi maire ci ay at yu yàgg di wax ne li nga wax dëgg la tey dañu tàmbale dëkku sànge fa la ñu dëkk dem pour xool la fa nekk te ndox mi ndax saafara nañ kam déet tabaar fakal la euh, ndoxum sànge saafara nañ lu tax sànge parce que sànge mooy dëkk bi gën a yaatu ci commune bi tabaar fakal mat juróomi junniy doomu aadama ñu fa dëkk waaye forage yu Sange gannaaw Sange dafa am yeneen forage yu mu lëkkale yu mel ni Jungaan yu mel ni Peleo yu mel ni Mbombay Ngagaj yu mel ni fii di Sessène yu mel ni dëkk yëpp donc forage boobu moo leen polarisé kon buñ ko saafara man ndox am fa tabar fakal dëkk yi may wax yëpp dañu am ndox gis ngeen sànq ñoo ànd Peleo gis ngeen début bi maanaam li ndox mi di génne tabar fakal loolu nag li muy firi rek mooy ne ko def nañu ko waaye nag des na ndax entrepreneur yi ma ko ren marché bu mat eh, juróom-benn fukki millions yoo xam ne uniquement ci wàllu ndox la ndax mel ni Ngombel eh, connecté na ko mel ni également fii Diamaguène Papaak donc liggéey la boo xam ne eh, bu mucc ayib la ñu ngi koy def ci wàllu googu sànq également dem nañu fële ca Thiéwo xam nga Thiéwo dafa xaw a féete ci kaw montagne waaye jël naa dogal ne forage boobu nga xam ne visité nañ ko sànq mi forage bu Batigri bi nekk jotu Thiéwo nañ ko bët indi ko cewo cewo am ndox ñaareel bi mooy bu ñu jógee ci forage ba dëkk bi am ndox euh, câble yi nga xam ne ñoo jógee Ngolfane forage Ngolfane ñëw fii ci cewo rek dinañ ko également yaatal ba mu gën a dooleel dëkk bi ci wàllu ndox waaye aussi nañ xoolaat aussi naka la ñuy bëtte ab forage pour waa cewo kese léegi dinañ dem également fële ca Kër Baara Pël suñu mbokk yi nga xam ne dañu nekk diggante Thiès ak commune bi ñoom dafa am liggéey bu ñu fa tàmbalee waaye ñoom dañ ko war a canaliser ci SDE maanaam SDE moom mooy saytu wàllum ndoxu taax yi donc loolu aussi nañ ko lijjanti ak waa SDE pour que Kër Baara Fall am bu ngeen dafa nekk dëkk bu mag tey fan yi dafa am également problème ndox moom maag waa SCO e ñi nga xam ne ñooy saytu forage Notto Ousmane Fall Marin ñoom tamit ànd nañu ak man pour que bu ñu demee natt pour Diack lëkkale ko également ci forage boobu ndax dafa am solution yoo xam ne mooy solution yu yàgg ndax pour jag fi may wax yéen forage Notto moo ko doon jax ndox waaye forage Notto doole bi dafa wàññeeku te lii yëpp soo ko gisee dafa am li tubaab naan changement climatique maanaam euh, jamono day dox te at bu nekk at bu nekk ndox mi day wàcc ndox mi day wàcc ci nappe phréatique bi donc looloo indi lii ngeen gis forage yi euh, am ay jafe-jafe ndax yenn saa da ngay indi euh, machine ba nga xam ne mooy xëcc ndox mi xam nga bu muy wax ndox mi di wàcc te machine bi fu mu toll mu toll fa day dema dem ba li muy xëcc day xaw a néew donc moo tax ñu ñëw changer forage yi Kër Madaro war nañu changer également euh, pompe ba fa nekk ndax aussi ndox mi dafa wàcc te nañ ko war a gën a xóotalaat donc façon liggéey yooyu la ñu nekkee euh, muy woon nekk loo xam ne ñu ngi massawu coono bu baax a baax askan nga xam ne ñoo am tolof tolofu ndox di gërëm nag sama naataango ba nga xam ne moo say wax saytu wàllu ndox Serigne Mbaye Thiam tabaarkalla wax dëgg yàlla ñu ko euh, waxee suñu taw ci wàllu ndox bi jël na waa OFOR ànd ak ñun jox leen ay tegtal gis ngeen tey waa Aquatech ñu ngi ànd ak ñun jël leen yóbbu leen indi leen ci groupe bi pour que mission bi nga xam ne dafa mission bu am solo dafa nekk mission pour ñu mën a yër mais aussi indi ay saafara kon loolu nekkoon la xam ne baaxoon na ma fàttali ko sant ko ci baax a baax ak service bi waaw xam nga démocratie moom wax dëgg yàlla mu neex moom mën nga doxantu loolu moom baax na sax ci wér-gu-yaram waaw loolu amul benn difficulté mu neex moom def ko waaye yaakaar naa tey boo demee woowaa saa ngi nga ne la nga bëgg a def marche pour ndox yaakaar na bu ñu déglu boo demee noonu pelew noonu boo demee jungaan noonu boo demee xanaa koo xam ne dafa bëgg a doxantu li am solo ba am solo mooy wàllu ndox dama ne sànq ci nasaraan new ndox lii di courant maanaam énergie lii di kaaraange di sécurité dafa nekk secteur yoo xam ne warul am xaaj ak seen ku yëngatu ci espace publique nga yëngatu ci politique dafa am sujet yoo xam ne kenn du ko foowee ndax kat ëllëg doo xam fooy féete te am na wax yoo xam ne li ñu tubaab naan populisme la maanaam wax ko pour neex wax lu neex nit waaye wër na li nga waxee amoo ci benn saafara amoo ci benn pexe da ngay maandu dem ci xam ñu am pexe ndax pexe bi fi mu toll pour ñi koy saafara moom ci noto jabaas moom Alioune Sall ak ñi mu àndal waaw keneen ku ko mën defoon na ko kon boo mënulee nag da ngay maandu ànd ak dal ànd ak yar ak teggin waaw parce que jël euh, presse yi woote wax la la neex loolu ku nekk mën na ko waaye nag ñun dañu yar xam it fu ñu soxe ko xam it lan mooy aada bërëb bii di Jobaas dafa am jikko te ma koy fàttali saay su ne fii boo jëlee guerre mondiale yi am ci àddina bi yëpp muy 14 18 muy 39 45 fii ñu bëri jóge nañ fi dem di xeex ay valeurs universelles pour la liberté pour la démocratie ñooñu ñooñu meññ bañ taxaw fii tey kon dafa am loo dañ ko jombal suñu bopp sa askan bu fekkee dafa nekk jafe-jafe na ngay def ba saafara ko jarul coow lu bëri. wax ji bu jotee rek mooy bu saafara amee neew naa leen du ma communiquer ci ndoxu sànge tant que saafarawul tabaarkalla léegi saafarawul xam nga lu mat fukki junniy doomu aadama bu fekkee dem na ba saafaruñu la seen wàllu ndox loolu dañ ciy sant yàlla duñ ko ndamoo nag mais dañ ciy sant loolu nag mooy li may xelal képp ku nekk fii ci Jobaas boo amee jafe-jafe ci bërëb boo ci mënee dara da ngay def boo ci mënul dara da ngay noppi waaye nekk ci réseaux sociaux yi di wax wax ju caaxaan loolu amul benn njëriñ te du jëmal nit ñi fenn ñun nag nii ma ko waxee ñii ma àndal lay mooy sunu euh, mébét saay su ne mooy naka la ñuy fexe ba apporter des solution concrètes à des problèmes concrets. courant xam nga nee na la des na ndax dëkk yi war tabaarkalla la bii ñëw euh, juróom-ñeenti dëkk amoon courant léegi ëpp na ñeent fukk waaye des na ndax fii juróom-benn fukk dëkk ñoo fi nekk ak ak juróom-ñaar kon liggéey boobu ñu ci continué ci liggéey ak waa Sénélec ak waa ASER pour euh, courant comme ni ma ko waxee ci nasaraan ndax courant wér gu yaram ndox. kaaraange dafa nekk service yoo xam ne c'est des services universels ku nekk war na ci am euh, di gërëm nag presse yi yéen taskatu xibaar yi ndax euh, baax na aussi lii ñu koy faram-fàcce dama ne communication bu àndul ak action propagande la action publique nag dafa am devoir de communication de rendre compte de reddition de compte na reddition de compte nit ñi dañuy foog ne mooy dem tribunal rek mbaa cour des comptes déedéet reddition de compte mooy nit ñi amoon jafe-jafe wàllu ndox ñu indi saafara nga expliquer leen naka lañ ko def ba saafara ko mais aussi yan matukaay la war jël pour moo tax ma ne sànq ci wàllu maintenance maanaam aar matériel ba nga xam ne def tu forage yi nit ñi war nañ ci góorgóorlu sànq gis ngeen dem nañ dëkk bu tudd Pélew il faut que mu loolu ndax lu am importance la dëkk bi réyul mais seen organisation ci wàllu ndox am nañu ndox moo xam ne mu ngi jóge ci éolienne maanaam ci courant boo xam ne mu ngi jóge ci euh, ngelaw li am nañu ndox moo xam ne mu ngi jóge ci euh, solaire maanaam ci naaj bi am nañu ndox moo xam ne mu ngi jóge également sàng donc diversification source énergie diversification également source d'eau lu day tax également dëkk bi am kaaraange te lii yëpp ay initiative la kon mbir mi nekku rek dañu war a xaar lépp ci état nit ñi aussi war nañu am ay initiative personnelles yoo xam ne bu ñu ko dajalee boole ak la ata état indi dañu gën a am doole rek je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre euh, accompagnement de ce matin nous avons été d'abord au village de Sangué pourquoi Sangué parce que d'abord c'est le plus gros village de la commune plus de 6000 âmes y vivent Euh, une grave merci, c'est résolu. Et quand on parle de Sangé, c'est également le village de Djungan, c'est le village de Pelew que nous avons également visité, c'est aussi le village de Sesen et c'est le village de Ngagach à Mbomboy. Donc ça veut dire c'est quasiment plus de âmes qui étaient polarisées par ce forage et qui étaient en panne. Aujourd'hui, c'est réglé. Comme vous l'avez constaté, on a été appelé tout à vous avez vu, le débit assez satisfaisant d'eau qui se fait là-bas. Donc si nous avons pu le faire, euh, nous rendons grâce à Dieu, mais je voudrais également remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, remercier également le ministre en charge de l'eau, Serine Baïtiam, et l'ensemble de son équipe, euh, l'OFOR, également euh, tous les services de l'État qui ont concouru à la résolution de ce premier problème. Évidemment, euh, on ne s'est pas arrêté là. Euh, nous allons tout à l'heure également euh, visiter un certain nombre de villages comme qui a aujourd'hui également des insuffisances en eau, puisque Poudjak est un gros village de 4000 habitants, connecté aujourd'hui sur le forage de Noto, mais qui a un problème de pression et de débit. Donc là, j'ai demandé à ce que SCO nous accompagne, ils sont là dans le groupe, et nous allons également connecter Poudjak sur le réseau Noto Ndiosman Palmarin. Nous avons également où nous allons connecter les villages de Thiou. Les travaux également vont démarrer dès demain. Euh, Kermadaro, euh, c'est la pompe qui est défectueuse. Nous allons également euh, la réparer. Je euh, suis avec Aquatec. Et dans les éléments que nous avons, aujourd'hui, la pompe est commandée. Alors, tous ces phénomènes-là, quand vous le voyez, sont des phénomènes également qui sont liés d'abord souvent à la vétusté des forages, puisque c'est des forages qui, sont, qui datent d'un certain nombre d'années, mais aussi liés au phénomène climatique. avec la baisse des nappes phréatiques, qui font qu'aujourd'hui, des puits qui étaient jadis assez en eau deviennent un peu précaires en eau. Donc toutes ces questions-là montrent simplement que nous avons besoin d'une mobilisation citoyenne, mais également des acteurs de l'État et du secteur privé pour qu'ensemble, justement, la question de l'eau puisse être résolue. Je suis avec l'opérateur John Diop euh, de l'entreprise ECPB à euh, qui nous avons signé quasiment un marché de près de millions pour faire la connexion d'un certain nombre de villages. C'est le village de Ngombel, qui est également connecté à nous. C'est également les villages de Djamagan Ababak. tous ces villages-là aujourd'hui sont dans une position qui nous permet à terme. Évidemment, ces questions-là sont des questions qui arrivent. Demain, un forage peut tomber en panne. C'est pourquoi je lance encore un appel aux populations, vous savez, nous sommes en démocratie, hein, chacun peut marcher comme il veut et quand il veut. Nous respectons cette position, nous pensons que quand il y dans une localité, euh, si vous n'avez pas de solution, il faut rester modeste. Ce sont des questions qui demandent des investissements importants, ce sont des questions qui demandent du sérieux, de la rigueur, ce sont pas des questions polémiques. Et vous savez, l'eau, l'énergie, la sécurité, la diplomatie, ce sont des questions qui doivent être des questions de consensus national. Ce sont des sujets euh, a celui qui prend ces questions-là pour la politique politicienne n'a absolument rien compris. Il est en retard. Nous sommes dans un monde où les enjeux du futur sont des enjeux qui vont tourner autour de l'eau, qui vont tourner autour de l'information, qui vont tourner autour de la sécurité. donc je pense qu'aujourd'hui, quand on opère dans l'espace public, qu'on soit citoyen, qu'on soit parti politique, on doit comprendre clairement que dans un pays qui veut Faire face aux périls qui sont en face de nous, il faut des consensus larges et forts qui, traversent tous les clivages politiques et tous les clivages ethniques, tous les clivages religieux, pour dire simplement sont des questions de société. Et les questions d'eau sont des questions qui vont se poser dans les années qui viennent. C'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui des programmes de désalinisation, de désalinisation, puisque l'eau est Donc oui, nous respectons l'ensemble des comportements citoyens. Celui qui veut marcher demain, il n'a qu'à faire la marche. Euh, ça ne nous empêchera pas de façon d'avancer sur des questions, pour apporter des solutions concrètes. Vous avez vu aujourd'hui, nous sommes allés à Sangé, il y a eu un problème, on a apporté des solutions concrètes. C'est sur ça justement que nous avons décidé de poser notre indicateur, notre marqueur et notre curseur. Et donc naturellement, on ne dévie pas de cette voie-là. Oui, euh, il nous reste encore des pas à faire puisque nous avons encore des villages malheureusement qui ne sont pas encore électrifiés. Nous allons continuer ce chantier d'électrification puisque je considère que l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès aux services sociaux de base sont des services universels que tout citoyen doit avoir. nous allons continuer à, faire ce travail-là de mobilisation mais aussi d'engagement avec les partenaires pour que justement la commune soit électrifiée mais aussi que le Sénégal dans